Mbaye Modou Mbaye Modou Mbaye Ngok Modou Mbaye Ngok le grand promoteur petit. kii du dara du promoteur dara le meilleur promoteur le meilleur promoteur. petit sant yàlla rek. jëm nga animé émission bu neex waxuma sax jëm un mois de Sénégal en un mois.

permettre ma jox ma ay moyens ne ma liggéeyal ak promoteurs yi bon ñu nekk si nag ñu ci quoi ñu jéem comme ni nga ko waxee rek ñu ngi jéem a gën a mën a téye gars yi na leen sax le plus longtemps possible pour lamb gën a mën a dellu fi mu nekkoon dégg naa sax dañuy maye direct ci kanam waaw dañuy maye direct dimanche prochain demain bëgg nañu def direct bëgg nañ maye benn direct may ko sénégalais yi le 27 aussi bëgg nañ maye beneen direct may ko sénégalais yi loolu yëpp day dépendre ci promoteurs yi parce que pay am loo xamante ni daf koy def ci lamb te baaxul parce que ñun ñi dañuy ñëw ci làmb mais bu ñuy ñëw dañuy bàyyi suñu waa kër wala dañ leen di jëndal ay code bàyyi leen fa mais bu ñu leen jëndalee code bàyyi leen fa bu ñu ñëwee dañuy dégg ñi ci ëpp dañ naan image yi ñuy jot baaxul connexion bi baaxul lii ak lii baaxul xam nga léegi nag ñu bëgg a tàmbalaat gars yi direct yi nekkaat ci loolu waaw loolu daal moo ñu tax Ama Balla Gaye mm. ah, ak euh, euh, Jackson. ñoom Jackson Junior. Siteu Papa Sow démb. Euh, Ada Fass Zarko. man mm. moo waaw Balla Gaye 2 Boy Niang na compliqué gérer. waaw waaw parce que derby la. gis waaw ci biir antenne bi ma xuloo. en xeex. waaw parce que c'était normal. Ah, ah. parce que bu ma ko deful woon sama suma émission du yegg. te gàj. défaite la si man ñu ne défaite la si man defet la ci 2STV bi ñu ne dañoo ñëw di def direct mhm. Et eh, direct bi yagul parce que mbëri ñoo de am comportement bu baaxul et eh, fallait que aussi que ma wane ni man ma nekk ci sama lieu de travail ah. man ma nekk fofu man ma fay chef bi et eh, à chaque fois loolu la ñuy wane ci liggéey bi mais aussi ci respect mm. waxante ak suñu ay morom xamal leen ben langage de jeune xamal leen ni ragaluñ leen bo leen bëggee yàq la sécurité dañ leen di génne mm. loolu rek la wona ah ñu def loolu aussi mu réussir waaw falee may imposé wu pour xamal leen ne tey fii suñu liggéeyukaay la fii du bërëb yi ngeen di yàq waaw parce que gars yi dañuy faral di am yenn comportement ci yenn bërëb yi mais su fi ñu nekk Alaaji Ndiaye dafa def matériel bu cher dafa xaas bu bëri parce que am na loo xamante ni buñ ko nangoo mu fay am rek ci ñun la quoi nan nga gisee woon Bala Gaye Boy Niang seen état y avait une tension metti woon na mais ñoom ñaar ñëpp pare nañu physiquement Bala Gaye mi ngi liggéey Bala Gaye mi ngi liggéey

loolu mënul ñàkk ci combat boobu loolu mënul ñàkk ci combat boobu parce que ñoom ñaar ñëpp ñu ay mbëru ndakaaru lañ comme ni ma la ko waxee Zarko am fu mu bàyyi ko Ada Fass am fu mu bàyyi ko mu ne combat bu am solo mais loolu nag dama ci xaw a am benn naxarlu bu ma ciy def mooy dafa am ay nit yu ay page làmb ñi nekk ci diaspora bi ñi nekk au Sénégal ay page yoo xam dañ leen di suivre uh-huh. te page yooyu baaxul ñu fay dugal yenn image uh-huh. billaahi li am ci violence ci football amul ci làmb billaahi ci àdduna li am ci violence ci football ay lacrymogène na fa li fay am amul ci làmb mais yi am na ci image yoo xam du génn mais ñun dañoo am ay page làmb ba pare bëgg di wane defetu làmb nañu bàyyiwaat loolu xel yenn yi seen ay page Instagram la ñuy nekk ñenn ñi nekk seen ay page TikTok ku ci nekk di wane image boo xam bëgg wane be bëgg a joxe bu négatif te loolu baaxul man de wax dëgg yàlla prendre na ci conscience amna na image yo xam dootuma ko wone te duma ko wone parce que day nuyu lamb mais lamb ngi dox lamb ngi neex digënde sen Zarko ak Ada day metti coow tangay la ba ba bamuy jeex ba bamuy jeex ñaari mbër yi état de physique Ada Ada dem bi mu taxawé ci lima gis ah. tolo nak Zarko dafa tolo ak Zarko dafa maa jaaxal ma tolo nak Zarko maa du melul nit dedet Zarko aussi dafa wàññeeku wàññeeku yaa nga koy wax ma waaw ah. mais aussi

moo ko raw parce que ñii ay xale lañ. ñii ay xale lañ ay maa ngi dugg si biir nga ñëwaat. jërëjëf maa ngi lay xaar si biir. kii mooy Modou Mbaye moo teel laa ma. maa ngi sëñ bi yàlla